soble bi fi ne dem nañ ba koy jëndee vingt mille benn soble tay tay tay tay la wax ni si lañ koy soga a jënd bii ma jënd nii tey suba 17000 la ko jënd. C'est le prix actuel du sac de l'oignon sur le marché. À Ziguinchor, la cherté de ce produit a créé une inquiétude chez les consommateurs. Ces derniers sollicitent l'intervention du gouvernement. soble dal mom metti na si ñun metti na si commerçant c'est vraiment dur. L'oignon coûte trop cher. Hein. Le kilogramme, on l'achète à 1000 francs, 800 francs CFA. Même pour faire du yassa, c'est impossible. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour acheter la même chose. Il faut qu'on nous aide pour diminuer le prix. Les vendeurs, trouvés au marché ces morts, tentent d'apporter des précisions sur l'origine de cette charité. comme que c'est à cause de la rupture du stock qu'on est arrivé à cette situation. L'État pensait qu'il y avait une quantité suffisante de l'oignon local, alors que tel n'est pas le cas. Ils ont attendu au dernier moment pour ouvrir les importations. C'est à cause de la rupture que l'oignon est cher. C'est trop dur, mais on n'a pas le choix. Pendant la corrida, le sac coûtait 3500 voire 4500 francs. Le gouvernement est directement indexé face à cette situation. Le gouvernement est responsable le gouvernement est responsable de cette situation. Il devrait descendre sur le terrain pour faire l'état des lieux. Comme l'oignon, d'autres produits ont aussi connu une hausse, d'où l'urgence pour le gouvernement de réguler le marché pour le bonheur des consommateurs. soble bi fi dem nañ ba koy jëndee vingt mille benn saako soble tey tey tey tey laa wax ni si lañ koy soog a jënd bii ma jënd ni tey suba dix laa ko jënd. mu doon njëgu saako soble buñ nemmeeku ca marché bi fii ci diwaanu Ziguinchor bii les produits cher na ba jéggi dayoo jëndkat yi ñoom nee ñu sonn nañu loola lu ñuy sàkku mooy rek nguur gi daal di ci dugal loxoom. soble daal moom métti na si ñun métti na si commerçant yi parce que tey moom boo jëndee soble kilo 1000 francs wala kilo 800 du la amal benn njëriñ mënoo ko mënoo cee togg añ mënoo cee togg reer boo bëggee togg yaasa moom mënoo koo togg jamono ju ñu toll ni moom yaasa moom kenn mënu koo lekk. du ñëpp am doole pour di jënd lu seer ñu wàññee feer yi ñëpp mën koo jëfandoo waaw comme sénégalais ñoom dañoo tàmm togg soble yu bëre. nañu wàññi affaire yi rek pour ñëpp mën koo lekk waaw. jaaykat yu ñu fekkee ca marché Sémour ñoom nag ñoo ngi jéem a andi ay leeral ci lu waral bi la yokkute. waa soble bi comme que rupture dafa am soble yi dañ daan daje te soble bii jeex na beneen bi ñëwagul kon avant ñu doon bi bii bi xamee ni bii presque li des bëreetul si doon waroon na bàyyi bala mu teel a ñëw mais bu ñu toogee naan des na si marché bi des na si marché bi fekk desul dara muy dem 10 ba 15 000 ñuy seetaan noonu ba nga xam ne ñu soog ubbi conteneur yi. te bu conteneur ubbee fekk bii jeex na liy jot a wàcc du mën a mat dëkk bi yëpp bu ko defee nag ñi ko amagu si ne li am lan neex ñu def. soble daa amut moo tax mu seet waaw lu manqué moom noo mën def mu seet waaw bala nga koy indi lu ne nga ciy daj pour waa ko. waaw metti na de mais nag amuñu pexe moom lu mu seer seer na am rek. jamonoy tam jamonoy korité jar na ay trois mille cinq cent quatre mille cinq cent.

am na tam yeneen produit yu bëre yi nga xamante ne yokku na li ñu mel jëndkat yi ñoom nee nañu jot na nguur gi daldi xoolaat marché bi bu ko defee mu daal di jur mbegte ci ñoom